filmer la ba doyal jël image bi garaawal. kon tey la moo war a nekk. loolu la ma war a nekk des fois day am. Mm-hmm, mm-hmm. nit mm-hmm. dina jàpp ne kii sama soppe la. fekk sa noonu la sa defet kese la bëgg. dëgg loolu dëgg. am na bu wér. ma dafa bëri Sénégal fii. waaw kay. dëgg la sopp boo xam ni. noonu la. parce que gis naa gis naa noonu la nuru sopp moom la Wolof Njaay wax noonu la nuru sopp. kuy mm-hmm. ànd ak yow tey. Mm-hmm. boo jooyee mu jooy boo bëggee mu bëgg boo kontaanee mu kontaan. Mm-hmm. loo am mu woon la ni yéene naa la ko. dégg ak yow ngeen taqaloo di aññanoo di reeroo di defandoo lu ne boo amee sa lu ko naqari nga toog di ko wax te mu soo xam ne kii sa noon la. fekk boobu mi nekk sa noon bu sës ci yow rëkk mooy génn sa wax moo lay weer say problème moo koy génne te doo ko mës a xam loolu mooy sopp noon buy nuru sopp loolu yàlla nañ ci yàlla musal. te am na fépp foo dem ci àddina am na fa. loolu moom loolu moom lu kéem lu kéemaan la lu kéemaan la fat parce que parce que gis naa yow sa compte compte TikTok dañ TikTok dañ ko bloqué. Mhm. c'est c'est bizarre lan lan moo tax loolu. waaw sama compte TikTok dañ ko bloqué mais man du ma teguma vidéo kenn. Hmm. dugaluma image kenn man sama. TikTok dañ la signalé. man sama yëf rek. Hmm. moom laa ci def ah ku ma signalé moom moo. mais pour lan loolu signalé la pour lan par ah, exemple. xam man teguma image kenn. Hmm. dagguma vidéo jàmbur. te da ngay jaay rek sa sa sa commerce. damay jaay rek mm. samay commerce def samay bagage te même bu mooy def léegi sax dootuma def téléphone kii numéro téléphone. Mm. parce que comme TikTok da koy bañ affaire yooyu noonu. Mm-hmm. nekkul chaque jour ay jaay laay génne non non damay am samay vidéo yu waxtaan ak samay fan samay xarit. Mm-hmm. di conseil ay nit ay waxtaan am solo. Mm-hmm. boo duggee sama TikTok di nga gis na damay joxe ay conseil ay waxtaan pour jigéen ñi pour góor ñi pour xale yi mais loolu def naa dara nekku ci. loolu lu am importance la donc daal Fatou suñu jàngee. Euh, culturellement Sénégal am na tuuti problème. bu bëri bi njëkk mooy ñun artistes yi la sa sa wax laay jàngal soxor ak iñaante mm-hmm. ñeneen bi mooy division bi mooy maanaam kii booram kee booram ku nekk day ut lu mu yóbbu këram ak mm-hmm. dépense am ah. loolu mooy li ngi sonal ñun artistes yi mais est-ce que nag est-ce que nag comme ni ma ko waxee woon sànq ci njëlbeen est-ce waruñu toll foo xam ku mel ni Fatou Laobé nga xam ni tey comme ni ma ko waxee ñëpp a ko xam ñëpp ko naw ci liggéeyam ci comportement am ci léppam est nga sol sa daal tey dem seeti Euh, suñu tata Fat Géwël dem seeti euh, Kindalaam dem seeti euh, ñeneen ñi suñu suñu suñu maam bi dëkk Rufisque seeti leen toog waxtaan. parce que dafa dafa jot dafa jot ñu ñu ñu boole doole bi. ba nga ah. xam ni artistes yi dinañ mën am benn kàddu. loolu moom xam naa ne mën naa nekk waaye xam naa nekkul nekkul man maa koy organiser. Mhm. nekkul man maa koy organiser parce que. <coughs> Mhm. dafa bëri yoo xam ne daal li ma la waxoon sànq Sénégal. Mhm. bëri na yoo xam ni daal boo ko boo taxawee rek. bu ko defee dañ naan kii. ak a hmm. seytaane ak a waane ak a nangam wax la ci di profité nag ci émission bi. di gërëm Waly. laa ko sekk ndax euh, keroog ma nekk sama guddi gi dama ko invité. tuddee ko guddi gi doon ko sargal moom. Hmm. Pape Diouf ak siidu Diop. Hmm. ku ci ne ma woo la. Waly nag jamono boobu mënuma ko woo parce que moom nekku fii ma jël lettre am yóbbu ko ci muum yi. immeuble Joni Joni. moom suñu sœur mm-hmm. jox ko moom mm-hmm. yi. sama doom ju baax jooju. Mm-hmm. mu jottali ko Waly Seck. keroog guddi ga Waly Seck un million la ma nit yónni ko mu ñëw. te naa ni te naa ni tamit moom nekku fi. loolu dafa nekk lu foor ci man. dëgg la ma bëgg a ci émission bi. wax ko. ndax dama leen doon sargal ñoom ñett. ndeysaan ndeysaan. Ah, Sidi Diop Pape ne ma dina dina ñëw. ak euh, ak Pape wax naa ak man ne ma dinaa ñëw. waaw ah. gisuma ko. ah bon Sidi Diop wax naa man ne ma dinaa ñëw gisuma ko. ah bon sekk Seck nag yónnee na teraanga. te nekkul Sénégal. tamit sargal bi ñu ko sargaloon photo bi ñu ko defaroon sargal ko tamit jox nañ ko ah, ki ñu ko war a jox mu yóbbul ko ko. macha allah yaayam. di gërëm moom di gërëm ñëpp. Mhm. boobu ba léegi maa ngi gërëm wax dëgg yàlla. Mhm. ndax lu baax moom ku la ko defal rek. man man seetlu naa ba ba léegi. Ah. Euh, bi mooy je pense cinquième numéro mooy def émission. Mhm. Euh, ñoom ñëpp suñu ay frère lañ Waly suñu frère la. Euh, Pape Diouf suñu frère la. Sidi Diop peut-être miinante wu ñu trop mais suñu suñu rakk la nañ suñu doom la sax. mais seetlu nañ ne Waly chaque fois nit dina ko tudd ci baax. parce que tey li nga def nii li nga wax nii lu am solo la. non nit su defee lu baax su defee lu baax. tamit da nga koy ah moo ko def defuma ko nag hmm. li may wax nii hmm. waxuma ko pour bëgg lu ko neex hmm. waxuma ko pour ut buzz waxuma ko pour mu xam man damaa ñëw fii di ko wax déedéet jubluwuma ci dara dama koy gërëm di ko sant ndax yëggam ma yëgg faale gëm ma faale xam ne kii sama bàjjan la ci ak aar bi kii sama yaay la ci aar bi sama lépp la ci ar bi te moom ma ci jiitu kii moo sama papa woon moo sama yaay la woon yëg-yëg bëx yëg ba mu am. Mm-hmm. xamal ma ni ma xamal won ma ni ma carrément ni néew ma fi waaye sama loxo dana ñëw sama ndaw dana ñëw. Mm-hmm. waale néew fi woon waaye loxoom ñëw na ndoxol ndawam ñëw na. naxuma daal ndaxuma macha allah maa ngi koy ñaanal nag gudd fan ak wér. Mm-hmm. yàlla suñu borom mu guddal fanam wér ak ay cëram. ndax xale bu la joxee cër da nga koy delloo maa ngi koy ñaanal fu ma toll. ah gis naa yaayam di ko ñaanal. ma ne waaw kay macha allah xale bu baax nii la war a mel. parce que yaay taxawee ba di la ñaanal ci xorom. Mm-hmm. nga xam nga ni lu jógee ci xol ci xol lay dem. Mm-hmm. xam na ni yow xale bu góorgóorlu nga. macha allah xam na ni yow mm. macha allah. macha allah xam na ni yow. macha allah ñaan gi jariñ doom dëgg dëgg dëgg dëgg. Mm. yaay a koy def ci doom du kenn du man du sàmba du demba du àddu du xujja du keneen. Mm-hmm. yaay moo mën a ñaanal di doomam ñaan bu dëgër këcc. yaay ma ko ñaan bu dul ñaan bu dul fausse. macha allah. ma ah, kontaan ci nag ah loolu moom loolu am na solo am na solo. ma kontaan Wally moom franchement ah on wax dëgg yàlla. comme ni ñu koy waxee rek ñun suñu frère la ñun ñëpp. waaw mosuñu seq wax dëgg mm-hmm. yàlla. waaw mais nag nit su defee lu baax moom dañuy wax ne def nga lu baax. te ci tuuti la suñu sac la la man muumi sama sœur la muumi sama xarit la magam mais mais li lu am solo la. mais yeneen artistes yi parce que ko yëg rek mu yëg la. te yëg-yëg boobu xam naa ci dara. te li hmm. may wax dama koo xam ndax dama kaa dund. ba fi nga toll nii est-ce que Pape Diouf ak Sidi Diop woo nañ la. gisuma leen dégguma leen. ok seeni foto yi ma leen doon sargalee. waaw dama leen koo yónnee damaa jël ay nit. Hmm. yónnee leen ko. woowuñu ma sax na ma merci beaucoup. Pape Diouf ak waa ak. Sidi Diop yi kenn wax la ne la merci. déedéet Sidi Diop damaa dem ba buntu soirée ma yónni samay nit ñu yóbbul ko foto bi ma ko doon sargale mooy sax photo yu mag yooyu nga xam ne. macha la guddaay bi 1 mètre la. waaw guddaay bi 1 mètre 20 yaatuwaay bi 1 moom laa leen doon sargalee ci bis. man daal li ma li ma li ma. ndax bu fekkee ay mm. mag lañ di def suñu soirée jël suñuy doom yi toll ci seen jamono. Mm-hmm. di leen sargal ci bis ba mooy wa mooy loolu wan na leen ni yéen da ngeen a war a góorgóorlu. Mm-hmm. ñaax la rek. génération bi c'est important ñaax la rek parce que kenn mm-hmm. mënuñ cee jox lu ñu amul. bañ dalee yor ay millions bari na te ñu ngi yor ay millions ba léegi. waaye nag dafa rafetoon nu ñëw teew fa. bu fekkee jox naa leen ay cadeau sax au moins ñu woo ah ma sœur. non teranga teranga du tuuti yàlla. teranga du tuuti maa ngi wax sàngam damaa jàppoon mais gis naa cadeau bi jërëjëf Mhm. waaw kenn woowu ma ci sax na ma fàttaloo ba merci beaucoup wala jërëjëf. non loolu doon lu metti sama xol nag ma bu ko wax fii mu jeex une bonne fois téelu ma leen dara. Mhm. waaye ñëpp ñëw nañ nag kenn manqué wut. ñëpp ñëw nañ mais man invité woo moom. Ah, sama ma ñëw ah dama la koy jégalu. loolu eh, kay ci man la rek dama parce que parce que tamit ku mel ni Fatou Laobé doon euh, référence ci dëkk bi. Mhm. koo xam ni euh, mënoon na sargal ku ne. su la neexoon nga sargal ay ministre su la neexoon nga sargal ay député mhm. mais nga jël ay artiste xale. Mhm. fexe ba sargal leen. donc loolu dafa doon symbole bu am solo. parce que loolu moo tax sax émission bi jóg ndax bëgg nañ ñi mag ñi. tàllal loxo ñu ndaw ñi. ba nga xam dinañ xam parce que am na ku ma ne sax. est nekkul li nga ci li nga li nga ci boole. Eh, Waly Seck ak ma ne non non loolu warul nekk loolu parce que ñun Sénégal la ñu nekk ñoo bokk lépp. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk ndey ñoo mm-hmm. bokk baay. Mm-hmm. suñu suñu éviter Waly éviter Pape Diouf. éviter te ñoom ñëpp nga tollale ñoom ñëpp nga tollale. ñoom ñëpp laa tollale ñoom ñëpp nga tollale même cadeau. seen publicité sax ñoom ñett rek laa ci def. te def nga publicité bi def nga lépp. mais non tout laa def boo xoolee seen TV dañ ko doon dañ ko doon teg matin di ko teg soir waaw. kon dañ ko ten dañ ko doon teg àdduna bi yëpp xamoon nañ ko soirée bu neex sax seen TV ko def direct soirée bu neex fees dellu ak nit. macha allah macha allah macha allah dëgg yàlla da nga mbay nag. loo organisé mu kii foog nga jox ma ci tuuti. <laughs> foog nga foog nga jox ma ci tuuti ndax dégg naa lu law ba taq rek même su daanoo xaar ma xëcc caq bi sax ndax mu daanu <laughs> bàyyi ma xëcc caq bi mu daanu ndax defe naa su daanoo su ma ko yoree rek euh, affaire dina ñëw quoi mais di profité ci occasion ne leen Pape Diouf ak euh, suñu frère euh, Sidi Diop woo leen grande sœur yi parce que lu am solo la parce que teranga du tuuti mm-hmm. te koo xam ni maanaam référence la ci dëkk bi mm-hmm. référence la ci culture référence la ci aada référence la ci cosaan mm-hmm. référence la sax ci ci jikko ndax farlaw bi kenn mësu ko dégg ci dara loo xam dafa ñàkk fayda lépp loo ko gis rek ci liggéey la ak ci valeur donc su la woowee ci soirée jël penn defar ay cadeau jox la te teraanga du tuuti wuy woo leen ko mu wuy si te merci beaucoup sax dafa neex merci beaucoup dafa neex hmm, dañu ne merci beaucoup fajul góom waaye dafa sedd xol dëgg la waaw te ku ci nekk nag wax naa ak yow téléphone hmm, hmm. avant